Hadi. félicité ci ndam lu rëy li nga am ci kaw Abdou Diouf euh, démb rek nga jógee Diourbel malgré coono yeeg yëpp tey nga riñaan ñëw indil Pape Mayel Diop drapeau loolu lan la tekki geste boobu yi tamit lan la signifié ci sa diggante ak Pape Mayel Diop. Euh, bisimilah gannaaw bu ma sant yàlla jul si yonent bi sallallahu alayhi wa di sant sama ñaari wayjur di sant sama sëñ sëñ Si di ñaan yàlla yokk leen tax ci barkeem. may nuyu Sénégal gi yëpp di sant tamit sama sëñ sëñ Pape Mayel Diop Mbacke jàmm ak jamono. ah geste bi moom chaque jour la et toujours incha allahu rabbi ndax Pape yàlla dafa dogal mu doon kenn ci man mu doon kenn ci man ma am ci ndigal aussi sama wayjur bi mu laa laaxu rek yàgg nañu ciy wax chaque jour li mu may njëkk wax mooy. sa papa bul ma sa réeroo ak moom ma am ci ndigalu yaay am ci ndigalu papa sama papa bu na cëpp barñi li mu may njëkk laaj mooy an sa papa kon dama amoon dama demoon di bëre ji yàlla dogal sama papa Amel Diol yebal ma bi ma yebalee dana moon dama laa yónnee dama bëgg nga dem andil ma ndam le ma demoon jëli ji ka ñëw andil ko ko nii tekk ci yi Moustapha Guèye moom mu jox ko nag ci loxo écurie Fass jox ko ci loxob père Abbas muy suñu président écurie ñu teg ko ci loxo père Moustapha père père père Pape Pamel mi ànd ak sama entraîneur bi tamit muy père Moussa xamoo nit boolaa laa boo laa mën a xam yow yaay kan rek nga nekk sa bés rawatina ànd ak kilifa gu ñëpp nawloo dafa am solo moom mu ñëw dagg bi biyam jóge ba France na Pape Mayel Diop damay ñëw jàppale Forza si bésam bi damay rappelé waat rek benn jour li ma ko mujjee wax ma ne ko bu dul woon yow heure bi bàyyi naa làmb ndax làmb métti woon na si man trop mu di ma accompagner di ma di ma accompagner toujours ba pare di ma dooleel man xawma awma aw coono bu dul coono entraînement ci àdduna. nan bi di am loo ah. dafa sifflé te waxoon naa ko ma ne bu arbitre bi sifflé damay dox jëm ci kawam arbitre bi dafa sifflé ma dox ma ma ma def benn déplace un déplacement gauche dox jëm ci kawam mu dóor ma ma ma ma yëngal sama loxo yi mu dóor gauche ma sasek ak sama droite dóor ko gauche andi droite ma gis mu mu defaat gauche arrêt mu defaat arrêt ma ma ma ma ko dóor un deux waat après ma door nag ay ay ay droite yu bari mu jaxasoo ma dóor ko benn droite bu dal ma xam ne dal na ma dox ci kawam di ko dóor nag foofu xaw naa defay ay que dóor naa ay droite yu bari yoo xam ne doon yoon mais man boobu xam naa ne droite bi ko dal xam jàppoon naa ne bu ko sama droite day doot ma ko bàyyi parce que xam. ban moment ko mën a parce que ba ma ko ba ma ko dóoraatee droite bi xam ne avant épercule bi. ci laa ci laa ko bëggoon jàpp ci laa ko fas yéene jàpp daan ko parce que dama ko dóor mu dal dëgg bu ma xam ne dal na mais boobu taxawagul nag te mbër mbër la bërekat la du ma dal ci kawam ah du ma dal du ma rek dal ci kawam bi mu demee si boole saako yi nag mu dóoraat ko dóoraat ko mu mu mu laal kanam gi mu jël droite bi laal ko ci kanam gi ma xam ne kon ko ma xam ne kon jàmm jannaxe na ma bal xool tànk bi bi mu déplacé woo tànku bi mu déplacé woo tànku droite bi tànku gauche bi avant droite ma teg sama loxo est parce que euh, waaw parce que li ñu waxante woon la rek. xamoon nit moom bu ne la nit bu ne la dalay daan moo la ëpp a doole moom booy dal ci kawam après doo xool sax nan nga war dal ci kawam mais nag li ma sàmmoon sama xel maa ngi ko sàmm ba léegi parce que xamoon na ne allah kulli alim day ñëw samay tànk. Euh, dafay ubbeeku loolu lu warul mën a ñàkk la. ndax la de Guiers 2 boo xoolee 2009 defee woon naa ko ndog-ndog am ba ñu ngi ci deux mille deux mille dix huit deux mille dix sept deux mille dix kon am na durant yàlla def ma dem ba. làmb war nañu mën a boole te aussi mbër mu war a jël la moment bi bu ma jëlul dafa am loo xam ne day gën a feeñ ci moom ndax fu mu toll nii su ma maytoo rek li liñ koy jëwee mën naa feeñ mooy ragal te loolu war na kaa mën a daw war na maa mën a teel a jël ñu bëre man pare naa pare naa pour bëreeg ñépp làmbala goo xam ne dama ko bëgg rek mais mbër buñ ma doxaat sama papa ji na ma bëreel damay bëre Tapati ah, sans ci sori duma ci sori parce que nit day am leen boole mais bu ñu làmb boolee man pare naa. bu ñu làmb boolee ñu bare ku ku làmb booleel jamono ji pare naa pour bëre ak yow. la dageer deux moo nekk sama kanam moom laa gis mbër bu ñëwaat pare naa pour bëre ak yow. nees. pare naa. da ngay tudd nees bu paree man pare naa. damay bañ a lim ndax yi koo ci lim koo ci lim mu daw génn te làmb ji kenn rawantewul ay làmba moo leen di boole mais Sa Thiès Boy Niang ku daan bëgg na su ma bañul combat yéex sax ku daanu sañ naa kaa jël am na làmb yoo xam daal du ma ci bëgg waxagul léegi mais daal pare naa pour bëri ñëpp su ma bëggee lim bëri Sénégal gi yëpp mën naa xaw a métti. ci mais moo duloo kan lañ koy jox jamono kan lañ koy jox ci Sénégal mbañ di moom Modou Lo ala mbër moo xam ne yàllaa ko def suñu biir gëdul réyul mais ñëpp loo ko kon ku ñëkk bëgg nga bëri moom suñ ma ko joxoon tey loolu damay sant yàlla bu baax xam ne aussi combat bu neex la ci man combat bu ma bëgg la parce que nag xamante nañu bu baax nekkoon nañu équipe nationale mbër bu ma xam la mbër boo xam ne xam na ma tamit. sa position biir la. position biir écurie Fass xanaa nekk xale nekk ak ay mag nekk ak samay mag nekk ak samay rak am objectif bu ma am ci làmb muy ñëw défendre kuréel écurie Fass foo ko fa ñoom Tafa Gueye tegoon man bëgg naa def plus bi ambition yooyu laa am mooy sama position écurie Fass bëgg naa daal def loo xam ne mbërëm écurie Fass mosu ko def loolu laa lool laa ñaan ma ñaan écurie Fass am yokkute sur si voie boobu laa nekk waaw mais projet Guiers Face moom mooy que xam dama dama naan sa rek ni ma bëgg a yare sama waa kër noonu laa bëgg a koo xam ne dam na kii ñëw bokk mooy rakat mag jiitu raka topp ñu ànd liggéey ndax ñu dama dem ci kanam a kanam dëgg yàlla daanu waxoo dëgg waxoo dëgg aw bala papa nga dama la waxoo dëgg maa la mën maa loo maa la sa biir bu rëy bi man dama xeex damay bëgg dama sa biir bu rëy bi foo may gënal moo tax ay lekk suuf maa la gën a taxaw maa la gën a taxaw maa a taxaw moytu dama lay